ngir màggalam gi doon safar di mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laa ngi yéem ko ngir gi doon safar di defar mbooloo dal koy lu doon laa ngi màggal nag moo ko daa def lim ci digle da ñu jaamu yàlla ci sunna sundi laa ngi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 ëllëg di lay raw bu leen koy ñeeblu muur maa ngi. di leen xamal ne itam. leen xamal na itam. fi ngeen ñëw. ngeen ñëw. barab la boo xam ne. la boo xam ni. li fi nekk ci mbóot. li fi nekk ci mbóot. mënee su ko wax lépp. nee na mënee su ta wax lépp. man mënu ma ko wax. nee na moom mënu koo wax. li ma ci xam rek. nee li mu ci xam rek. la ci mën a wax. la ci mën a wax li mu ci dégg. ak li mu ci dégg. waaw. Mhm. ndax barab bi. nee ndax barab bi. Sëñ Tuubaa mi ngeen di gës Sëñ Aafi mi ngeen mi ngeen di gës sëñ Afe sëñ Touba moo def ci moom lépp. sëñ Afe nag sëñ tubaa def ci moom lépp. ndax ba mu ba mu daanaka ba mu ba ba mu matee ba matee dara rek. nee na daanaka ba sëñ Afe matee dara rek. la topp sëñ Touba. la topp sëñ Touba. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. di dem ci àll ba. di dem ci àll ba. ànd ak murid yi. ànd ak murid yi. yorum naawal. yorum naawal. naawal naaw naawal naawal boo xam ne sax saaku saaku la daan doon saaku. nee na naawal boo xam ne sax saaku la daan doon. di ànd ak taalibe yi. di ànd ak taalibe yi. di liggéey. di liggéey. daañu daañu liggéey sax ba xiif. nee daana liggéey sax ba xiif. du gis lu mu lekk. mu lekk. ñu dem ci jànj. mu dem ci jànj. rukk ko rukk ko. di ci xewlu di ci xewlu. xewlu ci ba dëgër. nee na bu ci xewloo ba dëgër. delluwaat si liggéey suñ tubaab. delluwaat ci liggéey suñ tubaab. kooku nag ku gëpp taalibe. nee na kooku nag ku gëpp taalibe. yaa ko xam. yaa ko xam waaye man xaw ma waaye moom xamu moo tax. nee na moo tax. bi suñ tubaab nekkee fii. bi suñ tubaab nekkee fii. daana jekk ba digg guddi ba suuf sedd. daana bàyyi ba suuf sedd mu ànd ak ay taalibe mu ànd ak seet si seet si te li muy wax ñi xam nañ te li muy wax ñëpp xam nañ si ñaafe itam ne si ñaafe itam suñ tubaab daana jékki ba guddi si daana jékki ba guddi mu yónnee di ko woolu mu yónnee woolu seen diggante seen diggante ku cay wax ku cay wax da nga cay wax tuuti rek da nga cay wax tuuti rek da nga cay barkeelu da nga cay barkeelu waaye doo ci mën a wax loo xam waaye mënoo caa wax lu waaye xam naa waaye xam naa bu ngeen demee ci gone yi waaye xam naa bu ngeen demee ci gone yi bu ngeen demee ci a leeral la dinañ leen mën a leeral la lu bari lu mel nii la. ni ko sëriñ Afia Moussa waxee sànq ci sëriñ Afia bu ñu bëggee wax ci sëriñ Afia ginnaaw ci këram lañ ñëw te ni mu ko waxoon xaarijul Maodo la ñuy bañ kon li ñuy wax lépp da nga koy tënk ci moom ginnaaw nag li matoon wax lépp daanaka bi sëriñ Modou Mbacke si ubbee ak ni mu ubbee daanaka lépp matoon na waaye sëriñ Afia ñëw moom it. gëna yaatal li sëñ Modou Mbacke ci doon wax rakki sëriñ Touba la ñoo bokk Mamour Anta seigne waye itam buñ ko xolé ci wétu mam Anta Ndiaye Mbacke zat gogu itam moo mam Cheikh Anta Mbacke nako ko Moussa Ka di waye wax na jam zahir la jam batin moy dañu bok ak sëñ bi ci wétu ndey bok ak mom ci wétu baye waye loolu lepp nak bi mu indee li mu indi wala biñu ñu bi ci kanamum mu nek sen kilifa ca téel lañ ko teel a jox seen bopp moom la signalé di ñu ne mos a tàggoog moom benn yoon ci loxoom la la la la gémmee ci mos a tàggoog moom dara nak fu mu yend moo fa yandal fu mu moko moo lool rek buñu né diw sangam dundam gep ci loxo suñu tubaab nek nekk doy na sëkk mm-hmm. loolu rek dafa loolu euh, ku ko firi mu yaatu lool diw sàngam ci loxo sëñ Tuubaa la gimmee ci musta génn loxoom ba nit demee bar sax lu tax moom la nekkal lu jiitu muy dal alquran jàngal na ko moom sëñ sëñ Tuubaa jàngal na sëñ Afiya Mbàkke waaye Mamor si Sali ci boppam jàngal na sëñ Afé téere boo xam ne sëñ Tuubaa moo ko taalif kon yàgg na ci tënk di ko sëñ Afé waxe fu sëñ Tuubaa teg tànkam ci tukki bi furul Gabon ñoo ko am gànnaar sëñ bi dafa dem tey rek ci bët set ci daal fekk ko ñoo fa bokk nag at yi diir bañ fa nekk yëpp juróom-ñaari at yëpp juróomi at yëpp kasaalika Ceyeen noonu lañ fa nekkee ba ci fukki at ak juróom-ñaareel bi yëpp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 waaye ku la fekk. waaye ku la fekk. du la yem. du la yem du la ndax yow. ndax yow. xaw sa baatin de. nee na xamu sa baatin de. wala xam naa ci tuuti. wala na xam naa ci tuuti as lëf. waaye sa saayir. waaye sa saayir. xam naa ci lu bari. xam na ci lu bari moom si Modou Mbacke si mii. ndax bi ñuy ànd. ndax nee na bi nga ànd ak ñaar. ñun ñëpp ay tuut tànk lañ. yéen ñëpp ay tuut tànk ngeen jamono yooyu. sa way jur. sa waajur. jox la sama way jox la waajuram. nga jaar ndaam. nga jaar ndaam. ca boori Koungheul. ca boori Koungheul. dëkk ba nga tegoon sa tànk. dëkk ba nga tegoon sa tànk. te fu ngeen teg tànk. te teg tànk. fu ngeen teg tànk. fu nga teg tànk rek. foofa di njéende. foofa fo doon njéende. foofa doon njéende. tey jii. tey jii. soo ñëwaatoon ndaam. boo ñëwaatoon ndaam tey. danga xam ne. da nga xam ni. nun xam nañ ne. nun xam nañ ni. teg nga fa teg sa tànk. teg nga teg sa tànk. am na njëriñ. am na njëriñ ca ñoom. nuyu bu baax. nee mi ngi leen di nuyu bu baax. di ko jaarale rek ci sëriñ bi. di ko jaarale nag ci sëriñ bi rek. ndax ah, boo tuddee sëriñ bi rek. ndax boo tuddee sëriñ bi rek. mooy lépp mooy lépp. ndax lu mu ne woon na fi yem rek fi lay yem. ndax kat lépp loo xam ne sëriñ bi noonu woon na fi yem du jàll fa lay yem. kon nag. kon nag. sëriñ Modou Mbacke. sëriñ Modou Mbacke. Eh, dégg naa li nga wax. nee na dégg na li nga wax. xam naa ne xam nga ma. xam na ne xam nga ko. waaye xam naa la. waaye nag nee na xam na la. yoonu murit duy caaxaan de. yoonu murit duy caaxaan duy tappale. déedéet. déedéet. fu fi dëgg gi jaar. fu fi dëgg gi jaar rek. kooka ku mu doon. kooka ku mu doon. topp leen topp leen ko. barke borom Tuubaa. waaye ñi lay wax na Jibril yoon ñëw naa ñëwut. ñi lay wax naal ay xëy bu naan la jibril ñëw naag ñëwut bu leen leen déglu bu leen leen déglu déglu leen sëñ Touba déglu leen sëñ Touba déglu leen ki yàlla yónni woon ci nun déglu leen ki yàlla yónni woon ci nun bu ngeen ko defee bu ngeen ko defee da ngeen mën a na ngeen war a àgg da ngeen mën a àgg na ngeen war a àgg waaye li fi mag ñi defoon waaye li fi kenn mënatu ko fee def kenn mënatu ko fee def di leen woowaat yéen ñëpp ci màggal gi nag di leen waat nag na leen lii tàmbali waaye yéen ñëpp ci màggal gi ñu rek jëm Touba ñu waaj rek jëm Touba barke borom Touba waaj jëm Touba te wuy ji sëñ Touba nañ wuy ji sëñ Touba kuy kat nee na ku jiwut sëñ Tuubaa tardé de billaahi mm-hmm. kuy kuy ku sëñ Saliou waxoon na ne. sëñ Saliou waxoon na ne. Eh, kii jëf ci màggal gi. kiy jëf ci màggal gi. du bokk ak mukk ku ci dul jëf. du bokk mukk ak ku jëfut ci màggal gi. li ngeen am lépp def leen ko ci. li ngeen am lépp def leen ko ci màggal gi. da ci jëlee la dara laneen. da ngeen ci jële laneen moom mos leen. ah li ci sëñ Touba jëlee. li ci sëñ Touba jëlee. li ah, ci des dañ koy fortaat li ci des dañ koy fortaat rek. noppi na. noppi na. togg gi noppi na. togg gi ñor na xom. kenn doonu ci dara. kenn nag doon li ci sax ab xorom doonuñu ci dara. ndab li nañ ko ñor. ndab li daal borom togg na ko ba mu ñor. ku dikk naa la ndab li léeg laa xamal ne sëñ bi togg na ko. ku dikk daal di wax naa ndab li léeg laa yaag moom a ci yem. daal rek eh, eh, da laa gën a daru. dikk rek fekk mu ñor. waaye ñor na waaye ñor na. lan raxasu te lekk rek. <laughs> raxasu ah, waaw góor. te xam ne doonuñ ci dara. na raxasu lekk rek te xam ne doonuñ ci dara. maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp. barke borom daal mi ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah.